femme internautes yi ñuy suivre à travers des Prod bëggati nañu kontaanati nañu jàkkaarloog yenn comme ni ñu leen ko waxee rek tey ñoo ngi fii euh, ci euh, Pikine euh, fekk si nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Benjamin Family waaye nag kenn mënul wax Benjamin te waxoo kii di ki di Mbaye Sy Ndiaye tubarkàlla waaye balaa boobu nag damay sant waa Pikine yëpp rawatina Issa création bi nga xamante ne moom a génne fii tubarkàlla na ma Ndiaye doxalal Mbaye Sy maa ngi lay nuyu. Mati di nuyu amee internet yi nga xamante ni ñoo ñuy suivre ñëpp di nuyu fépp soppe nekk ak am di jàmm yi waa Europe waa asi waa diaspora bi ñëpp rek kulim juum mais nag di def mention spéciale këru diine yëpp di wax ni ñu ngi jéggalu ñëpp di baalu ak ñëpp ci weeru koor gi tey baal ñëpp ak aji jërëjëf comme ni mu ko waxee rek yàlla bu mu nekk suñu mujjantalu koor koor yi suñu borom di gërëm yàlla nañu ci booleel bi mbay si tey ñu ñëw seen kër fekk si la sa rakk di fàllu Benjamin euh, woote lu am solo muy waa Benjamin famille di def euh, solidarité def ndogu Benjamin famille ñu bëggoon a xam rek naka nga ko dundee ak initiative bi. waaw dañ ci am mbégte ak contentement di wax ni bii du première euh, yàgg nañ ko def yaakaar naa bii mooy trois ans ñu koy def xaw ma quatre wax dëgg yàlla di am mbégte ak contentement ci lii di ñaan muy gën a dem kanam saa ne ak képp koo xamante ne rek am nga yéene yi di ko def saa su yàlla sunu borom mottali yéene yi di wax ni réew mi lii rek lii rek la xam lii rek la ñu mën defante yu baax waxante yu baax rawatina ci weeru ramadaan bi nga xamante ni ren dafa spécial te ku ne weddiwul nii sunu mbokku chrétien yi ñoo commencé ñu dajeek ñoom ci fin bi wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ni mustam ci àdduna bu ci nekk def la nga war a def barki dem boo njaay teraanga yi bari lool ci suñu mbokk chrétien yi jox ni Sénégal daal li fi am amul fenn yàlla na yàlla dolli jàmm. amin yaa rabbi yal na yàlla dolli jàmm euh, ñu gën leen a ràññee ci musique bi tey lan moo leen poussé ba ngeen def lii. waaw d'abord ñun ay jullit lañ nag wax dëgg yàlla bokk ci njabootu Cheikhul Khadim doon ay taalibe murit bëgg a doon ay murit wax dëgg yàlla ku xam murit xam jëfe ndigal ak. sant saa su ne ak cant mbégte joxe ñam wax dëgg yàlla jàng xasida def ay kuréel Baay Faal loolu lépp wax dëgg yàlla musique nag métier la rek moo xamante ni dafa am période yoo xamante ni da ngay nekk sa métier mais après métier moomu nit nga da ngay def yëfi nit dangay ngay def yëfi taalibe da ngay def yëfi lépp lu nit war a def rek da nga koy def loolu période la rek waaw bu ñu duggee ci weeru koor da ngeen di jël pause naka ngeen di dundee pause boobu. waaw ni koy kiiwee mooy wax dëgg yàlla def li nga xamante ni mooy li ñu ci digle avant tout muy lan woor woor ah julli ah ñiy joxe mbuurum koor joxe mburum koor wax dëgg yàlla nas asaka lépp loo xamante ni doomu jullit da koy def musicien bi da koy def wax dëgg yàlla di wax ni nag ni musique moom ay période la rek yoo xamante ni da ngay liggéey mais boo wàccee du tout le temps ngay nekk ci affaire showbiz bi wax dëgg yàlla koor daal yëfi diine la te ku ko wax wax lu am doole donc loolu moom poids yi jett sax méngale wax dëgg yàlla waaw. kooru musicien du yomb de parce que des fois nga toog ba si yàgg lu mel ni xiini romb la nga xaw a jaawale. non ñun mis nañ loolu wax dëgg yàlla Euh, di professeur sax ci occasion bi di nuyu sunu mbokk mi musiciens yi di wax ni maa ngi baaluwaale ak ñëpp tey baal ñëpp ak parce que musique yombul yaa ngi wax léegi concert mais wax dëgg yàlla bari na ñu bari ñoo xamante ni ci koor gi sax ci la ñuy liggéey ci la ñuy xalaat ci la ñuy def ay affaire yu bees wax dëgg yàlla donc concert la du concert parce que activités yi ci guddi gi lay doon fanaanee liggéey boo xëyee nekk ci sa koor boo ndogoo continuer waat ci liggéey bi wax dëgg yàlla musicien amul congé daal kay soirée yi la ñuy rek waaw loolu kese la. soirée yi la ñuy après koor gi réew mi dana daanu daanu temps loolu laay way ma. comprendre ma luy la après koor réew mi dina daanu. dana daanu luy loolu. luy luy daaneel ah man dama ko xam damaa dégg rek xale di ko woyantoo man tamit ma topp ci di ko wayantoo après koor gi réew mi dana daanu daanu daanu. comprendre ma. non am na benn musicien bu ko way ne après koor gi réew mi dina daanu. kan moo way la. Sidi Diop. ah ok ah Sidi sunu rakk la ñu ngi koy ziar lu bëree bari waa mais àdduna loolu la wax dëgg yàlla loolu la ku ne am nga am nga sa slogan loolu slogan la nañ ko bàyyeek moom tey koy ñaanal yàlla yàlla na ñëpp am jàmm yow sa slogan mooy am na ñoo xam ne bu ñuy wéet di xaru. li ko waral mooy. Mati dañoo nekk ci weeru koor balo koor gi jeex. Ah, ma merci man dama lay laaj rek ci koor gi ba tey ci koor gi laa nekk de kooru musicien yi laa lay fàttali rek nga bañ koo fàttali. nañu wax ci koor gi bu koor gi jeexee boo ma seetsee ñu def interview bu mucc ayib. yow dama lay seet si man fii sama kër la damaa ñëw sama kër tey. voilà loolu ngay def nag loolu moo gën nga ma jéem a waaxu ne. di nga ma gis gisaat ma gisaat ma parce que damay ñëw non seulement pour liggéey ñëw jël si sama sagari njaam ñëw jël si li ma moom. Mati maa ngi lay xaar xaaraat la xaaraat la di la xaaraat di continuer di la xaar. tey lan ngay wax euh, jeunes yi nga xamante ni peut-être ñoo ngi ci musique bi ak weer koor bi te bientôt incha allah mu jeex ñu delluwaat ci euh, affaire yaa ma gën a xam tey lan nga leen di conseiller ci euh, un mois bi nga xamante ne toog nañu sans soirée ni rumeur. waa xam nga nag boo nee conseil day xaw a parce que man sax wóoruma ba xam ci li ma nekk mooy bu baax mu déet. xalaat bu gàtt. mais damay ñaanal rek yàlla na ñëpp am jàmm bu ñëpp amee jàmm rek te ku ci nekk ànd ak sa xel ba li nga bëgg a def nga mën koo xalaat di ko def parce que àdduna dafa doy waar léegi tey yaa may doy ma dugal ci kàmb yoo xam ne boo ci kiiwee rek mooy loolu yéen yéen yéen yéen da ngeen a doy waar yow. lu bëgg saar bu ngéwéle laa bëgg. ci eh, saar bu ngéwéle. waaw bul dugg ci loolu bu ma dee julli daal dinaa tari saar mais fi nii di tori saar noonu rek dans leer noonu wax dëgg yàlla mat yow taril ma yow tari ma. man mun naa la ah, taril. waaw taril. mun naa tari. taril. waaw mais tey man maa lay tariloo su ma ñëwee nga tariloo. boo ñëwaatee léegi soo taril ma tari. boo ñëwaatee ñu tari. déedéet man soo taree nii nii ma tari. boo ñëwaatee ñu tari. léegi bu ñu la joxee tàndarma boo ndogoo looy wax. wax bu ngéwélee bu ngéwélee garaaw. bàyyil ba ma jàpp ba pare rek dama jàppagul moo tax. bu ma non non ndogoo ko dogaguma ay ca mbay si contentement la euh, ak mbégte jàkkaarloo woon ak yow tey jii fekk si la fekk si sa rakk Fallou Benjamin mais balaa may tàggatoo ak yow damay ba ma bëgg a xam naka ngay dundee ak Fallou sur scène. comme nan. naka ngeen di dundee sur scène xam nga vie bi ngeen di am ci biir kër gi euh, c'est diamétralement ak boo leen nekkee sur scène. xam nga nag kër gi kër gi la frère ak frère bokkut ak bu nekkee sur scène bu nekkee sur scène. ñu ñëpp on de des musiciens esprit bi ñuy am ñu ñëpp ci scène bi daan gépp moom rek la ñuy am waxtaan def nii def nii enjoy affaire bi bokku am yéenay def lu bégal soppey loolu kese affaire bu naturel la kër gi des fois Fall du jàmb aw nii nga jàpp kii bi teg ne cóol meeg ñoom seen. waa kër gi loolu moom loolu kër gi la bu nekkee ci kër gi ambiance ak waxtaan ak déco nekk yooyu yëpp yooyu yëpp a ngi ci biir rawatina kër ngi woon yow tamit li ngay wax ni yëpp yaa ko gën a xam. da ngay mbalak ni rek mais yow sax boo nekkee sa kër xam ni la nga fay def ak boo nekkee ci mbedd mi bokk. dëgg la Aïcha merci beaucoup cant ak ngërëm ñeel na la bàyyi la rek nga tàggatoog internetu DS Prod. waaw di jox ñëpp rendez-vous incha allah di wax ni yàlla ñu yàlla defal jàmm koor gi niñ ci duggee ak bisimilah ñu gën ci ak di wax ni buñ ci génnee ak alhamdulilah yàlla na ñu fekkee ak tal ba ku ci nekk say intention ak li nga xamante ni mooy say mëbët. ak say projet ku ci nekk yàlla suñu borom mottali ko matal ko yàlla ñëpp am jàmm daal di bëggee képp kuñ doom doon déglu bu ñu waxee lu baax yàlla sunu baaxloo moo ko baaxal mais bu ñu fi waxee loo xamante ni kii na doomu adama moo matul donc daal di wax ni yàlla na yàlla nangu suñu koor jërë ngeen jëf Mati kontaan nañu yaa équipe bi nga àndal ñëpp caméraman yeeg monteur yi beeg ah, PDG beeg vigile yeeg ñoom ñëpp rek. dees borom États-Unis Serigne ñi na Fall ah ñii na moom xanaa day fay après yaa mbadu moom du wét di xaru yow moom da ngay wét xaru yow mbay si waaw mbay si taximaan maa nga ne toog nee na tàndarma ak lan ak mburu ak lan yow moom dinaa la simmi jaajëf ay ayca merci beaucoup cant ak ngërëm ñeel na leen lii la ñu leen indiloon ci seen spécial ramadan comme ni ñu koy toppee rek di dem si ndogu yi waaye duma ma si benn yoon damay jóg wane ay baax baaxam tubaarkàlla muy sama tailleur bi Issa fii la ma génnee njaga jëlal loolu macha allah yàlla loxo bi wér. Euh, borom ciseau jamaa bi laa ko tuddee day dagg te du dëng di omb te du mbaq tubaarkàlla mooy borom marché zinc yow mi bëgg Issa ñawal la demal foofu ci centre commercial euh, Khadija boo demee di ko fa fekk tubaarkàlla xale bi euh, këttal loolu doy waar ciao ciao